man bima ñëwé ma xamni 15 ans de bénévolat li mu gën a métti yaa koy liggéey té tu es très mal payé la retourner école di fayé sama bok def 3 ans école pour une formation de sage-femme diplômée d'État qui l'a décroché sama diplôme en 2008 ci lañ may doog a ma major fi la marketé sama le fii la ko def man dama amul di métier du question xaliss moñu fi indi amul di métier benn ma maa ngi nii taxaw mën naa wax mom ci kërëm ak yeneen malade yi ñoon doon jàppale ñuy diri lal yi ma di leen rawa di leen dawale fële saa yi yëpp bu tawee dañuy fees del dañuy toog ci kaw lal yi ak seen doom yi waa léegi moom mu tabax fee ca kaw prima mi ci 2 millions defar këram ba mu baax tabax ci biti fee lu mel ni këram jël ay mbokkam yëpp dugal leen am ay vacataires yo xam ne ñoo fi nekk ndoog ñoom depuis année yi ma leen di wax def nañ fi 20 ans 30 ans ba légui recruté wu leen ñi ngi dund ci vacataire ah ma ne man presse bi di ma dégg may wax il est temps ñu ñu ragal nañu dañu sonn man waxuma waxi xaalis dëgg la xaalis neex na ci xol dëgg la buñ ma ko joxee ma jël mais maman yaa ngi nii ñu ngi nii kenn na ngi nii keroog ba ñuy simpi lal yi mi ngi nii fi la ko fekk moo ñu doon jàpp ñun ñoo doon puus moom dañ doon xuus ñu ngi nii. di fobeere di fobeere ñooy fobeere bâtiment yi fay seen climatiseur amul ci salle bi kii damaa xëy mu ne ma sama doom ji xale yëpp a fanaanee jooy yooyu di leen matt tangay di len bëgg ray jour bobu la len rawale genn len ci salle bi yóbbu leen ca salle bi salle bi bima len ci yóbbu man major ma doon nettoyer vitre ak lampe yi di fobéré pour de rawale samay malade pour xale nek ci jam wa légui ñu ne loolu kenn du ko wax mom moy kan dama la moy kan waaw yéen ma bàyyi wax leen ndax loolu dinañ ko wala duñ ko wax te bis bu ñu leen di sax di leen laaj xaalis te boo fay

waaw léegi dañuy bàyyi bâtiment bi ndox mi sotteeku ci kaw malade yi inondation ci biir saal yi yooyu di matt xale yi tàngoor bi di leen ba a rey léegi nag mu ne kenn du ko wax moom mooy kan moom mooy kan ñuy wax mu génn ci rajo yi naan laaj leen chef de service pavillon O wala pavillon M pavillon O ak M baaxul bâtiment yi ñu mu jël ku ñëw di def visite ci bâtiment yi bees yi la lay du la dugal O du la dugal M ñun lii lañu wa